ci l'observateur jërëjëf euh, restez avec nous l'observateur ak record li ñu xëyee tey ñu xool Abdoulaye l'observateur li mu xëyee tey euh, mercredi 28 février 2024 gis nga ak dialogue bi date de la présidentielle le euh, dialogue tire son juin jeu de mots bi ak exigence réouverture liste candidat yi ak ay limitam transition le saut dans l'inconnu de l'après 2 avril ay éclairage euh, juridique ak politique ak recommandation yi tukkee ci dialogue boobule li nga xam ne moo di président Macky ay kàddu yi mu yëkkati bi ci mujj mooy ci ndorteelu dialogue bi diagnostic scolaire du président Macky les traumatismes euh, déprimants de fin de règne am na koo xam ne noonu la ko gisee nee na il est juste de constater impuissant que son autorité s'effrite de jour en jour diggante page 3 ak page 5 la l'observateur ñëw ci loolee lépp euh, ki jiite parti bi di Rewmi di Idrissa Seck le leader de Rewmi ni au dialogue ni avec le FC 25 Idy anime le débat de l'entre-deux tours am na luñ ci bind euh, prison enquête la vie de couple en milieu carcéral L'Obs taxaw na ci tey enceinte et emprisonnée dans la même prison que mon mari nee na ñoom mënuñu woon sax tudd seen doom bu jigéen bi nga xam ne fa la juddoo ci page 9 la nekk euh, ci wàllum tàggat yaram wàllum yoon yi tamit ki déféré devant le parquet hier le lutteur Gris 2 décroche une affiche pour le procureur noonu lañ ko euh, imagé ci wàllum làmb ba tey Coupe du Sénégal la dernière innovation euh, du CNG ñu jàll ci record Abdoulaye Ban ci ak Gris ah tiitson juin je pense que am na beneen journal aussi bu xaw a def lu mel ni <laughs> ñu xool euh, record li mu <laughs> li mu xëyee tey jilee Apulaay ci xëtam euh, mu njëkk euh, ñu xool ci wàllum tàggat yaram <laughs> ça moom euh, kii lay doon moom doy waar ay ca appalay ñu xool record voilà malheureusement quelques soucis avec euh, écran bi pour wan leen record ak li mu xëyee tey jëlee ci euh, xëtam mu njëkk moom ak l'observateur muy ñaari quotidien voilà lu <laughs> ma leen a déedee voilà c'est bon avenir du sélectionneur national si c'est un poste pour la CAN 2025 vers la confirmation de Pape Thiaw comme adjoint et série A joker de luxe d'emploi Mbaye Niang brille de mille feux euh, lanterne rouge après 12 journées USCT Port prend euh, prend eau de toutes parts maanaam yëf yi neexul ci ñoom OM en feu avec l'arrivée de Gassé le déclic pour Izo et Iliman euh, point d'interrogation daanaka football képp la record xëyee tey jile moom ak l'observateur ngeen mun koo jënd liir euh, xibaar yooyu ci nekk yëpp alors euh, ñu tàggatoo ñëw nañ ci njeexitalu émission bi merci beaucoup monsieur Thioune jërëjëf ñu mm. euh, ngi lay sant. merci leen di sant bu baax mm. ba suba ak jàmm incha allah waaw ba suba ak jàmm ñuy sant ñëpp di mm. gërëm suñu grand Thioune ci teewaay bi.